Thierno Bocoum Thierno maa ma lay maa ngi lay fay. Thierno naka nga gisee tolluwaayu réew mi jamono yi ñu toll. réew mi mbir mi loo gis muy doxee benn doxin bi rek da ngay xool fi ñu ko yor. réew mi ñàkkul nga jàpp na ñi ko yor ñoo doxalul. waaw ñi ko yor ñoo doxalul parce que réew mi ñàkkul réew mi am na ay ressources am na ay ressources naturelles. Hmm. am na or. Hmm. am na zircon. am na ay phosphate. li ma lay wax nii lu lu lu ñuy exploité la. Hmm. ay at mu ngi nii. Sénégal gisu si boppam. def nañ découverte pétrole gaz. nga xamante ne réew bu ko mës a am. romb nga fépp maanaam bokk nit ñi nee nañ alhamdulilah rabbil alamin mais tey soo gisee tiitaange am. parce que ñu ngi signé ay contrat yoo xam ne bés bu loolu génnee. daanaka Sénégal nu mu demee woon si or ba rek. la nar a si pétrole bi. dara demee si gaz bi. loolu lu muy tekki. mooy ñu yor boppum réew mi. wala ñu xalaat nan la ñuy def ba. loo xamante ne jëm na si intérêt population yi leen fal. samp ko dëgëral ko fexe ba sénégalais ñu gis seen bopp si Sénégal dañuy préféré ñu dem lëkkaloo ko waa bitim réew. fexe ba ñu seen intérêt ñu koy doxal. loolu dañ ko ñaawlu. réew fu muy toll. Euh, jafe-jafe am. espoir amatul. nit ñu dem ba gis na ne fii ñu jëm. suñ ko continuer dina indi musiba si réew mi. te ñaanuñu ko yàlla dafa war am ñu jël seen responsabilité. te dañ jàpp ne ne ñu ko war a gën a mën a jël. mooy ndaw yi. Euh, dëkk yu mag yu bëri suñu ba tey. ñu am macha allah ñu ñu am lu bëri loo xamante ne changé na si seen askan. wala changé na si seen dëkk. c'est parce que benn moment dafa am ñu jël seen responsabilité takku. xam na ne tey képp kuy kilifa soo sañoon sa doom bi nga jur mu tekki. képp kuy kilifa soo sañoon sa doom bi nga nekkal sa dëkk sa kër. mu am lu ko neex. ko sànq. Eh, ba ba ma xalif bi recevoir ba pare ba ma génn di wax ak journaliste yi. mën na leen Sénégal suñu tolloo. c'est parce que lu ñu jëlee suñu maam yi dañ koo teg fële. i xaadim rasul lum ñu won si ay valeur lu mu bind te ñu liir ko ak li mu wanee ñëpp teg si seen bët te bët ba mu sóoraaleel ñun ñii suñu àdduna waa su dee dañu jël loolu yëpp ak ñeneen ñoo xamante ne ay ay ay kilifa diine lañ lu ñu def yëpp si réew mi nga jël ko teg fële bëgg a dem jéggaani dem xooli leneen lu mel nii dalay jaaxal donc dañ jàpp ne leen ne réew soo ko bëggee yor wala nga bëgg fee nekk si nekkin bu baax dangay am identité d'abord da ngay xam yow yaay kan ak si lan nga bokk soo amee loolu ba pare nga soog ibbeeku si ñeneen ñi waaye nag soo ibbeekoo rek te amoo identité lu ne mun a laa yóbbu lu ne mën a laa fax nit nag soo xamul foo jëm dangay ngay dellu si fu nga jógee te ñun lu ñu am suñu réew waruñu ko échanger ak dara am nañ ay valeur am nañu éthique am nañ ay principe nit ñi nit ñi jàngal nañu suñu suñu suñu euh, kilifa diine yi jàngal nañu vraiment euh, yenn principe yoo xamante ne suñ ko toppee dara waruñoo jaaxal waaye gis nañ ne ki fi nekk wax dëgg yàlla ba mu toog léegi lépp lu jëm ci intérêt Sénégal yi daf ko teg fële que sooy xool tey euh, dem na sax ba jël avion dem France sol casquette wu benn entreprise defal leen publicité ñibbisi entreprise boobu moom la jox terre terre bii nii ñuy wax moom la ñuy def jël plus de mille milliards def ko si alors que euh, PUDC bi rek ñu naan mu ngi toj réew mi plan d'urgence et cetera cent quarante cinq milliards rek lañ ci def loolu dafay tekki ne ne euh, tey Afrique ak Sénégal suñu bëggee mbir mi dox suñu bëggee mbir yi avancé dañuy teg si bopp réew mi ñoo xamante ne dañuy sauvegarder seen intérêt loolu dina tax ba ndaw yi di dem di def marchand ambulant ñu am si lu ñu jàpp seen dëkk ba ndaw yi di traverser géej gi ñu naan Barça wala Barsak ñu toog seen réew ndaw yi di dem Libye ñu leen di jaay ñu toog seen réew ndaw yi dem sax ba ñu leen di rey moritani ñu mën a yem seen réew loolu yëpp parce que dañu amul si lu ñu jàpp moo tax. ñu ngi lay sant baax di la gërëm. jërëjëf maa ngi lay sant.